mbokk yi ñoo ngi leen di nuyu euh, di leen sant rawatina taskatu xebar yi nekk ci suñu kanam ñoo leen woowoon ci jataay bi ngir waxtaan ak sénégalais yi góor ak jigéen tànn ci biir nag sénégalais yooyu ñi nga xam ne dañoo nekk ci langue politique ak ñi nga xam ne dañu di tudde société civile association yi yu xale yu jigéen association yi nekk ci quartier yi ak ci dëkk yi ak képp koo xamante ni yaa ngi yëngutu ci li soxal askan wi ñoo ngi leen di gërëm di leen sant ci seen teewaay ci tàmbali bëggoon nañ wone suñu cofeel ak suñu yërmande ci nit ñi nga xam ne jamono jii ñi ngi ci mbënn mi ñi ngi dund ci biir ndox yi ñoom seen waa kër muy lu metti ni ngeen ko xamee gouvernement bi taxawal na li ñuy wax plan Orsec wante li ñuy xamal gouvernement bi mooy mbir mi nekkul ci xaatim ay bind nekkul ci itam ci wax ju dul jeex ñooñu nekk ci biir ndox mi ñoo ngi wax président la république ne dafa war a dajale jumtuwaay yépp ngir génn leen ci ndox mi ci ni mu gën a gaawee ndax kat ndox mi bari nay loraange lu mel ne ay jàngoro ak yeneen ak yeneen kon li ñuy xamal gouvernement bi daal mooy ak ki ko jiite lépp loo xamante ne nii war nañ koo def ngir saafara bu dar saafara boo xamante day wér mbirum ndox moomu ak ni ñuy ñëwe ci dëkk bi loolu noonu war nañ koo def ci ni mu gën a gaawee te loolu boo ko teg milliards yi nga xam ne nii dañ koy wasaare at mu jot. bëgg nañ itam wax ne jàngoro ji ñuy wax Covid 19 mu ngi ci réew mi. di indi ay loraange yu bëree bëri te loolu ñi nga xamante ni ñoo ko lawal mooy président Macky Sall ak gouvernement ndax taxawuñ ci taxawaay bi war te itam jëwriñ ji nga xam ne moom lañ jox mbiri wér-gi-yaram moom day xelum boppam daf ko doy lépp luñ ko wax ak lu mën di doon mu indiwaat ko ci mbirum politique jàpp ne sénégalais yi ñi ànd ak moom la war a déglu ñi nga xam ne ànduñoo moom du leen déglu kon day wane ci mbir mi doye di ñàkk xam ba pare doylu xalaatam loolu nag ki ko fi bàyyi bokk na ci lii lawal jàngoro ji ñoo ngi ñaan population Sénégal maanaam nit ñi ñu wan ginnaaw gouvernement bi nga xamante ne nii taxawuñu benn yoon ngir faj jàngoro yi te nit ñi itam nañ fexe ba sàmmonteeg li leen waa kër docteur wax maanaam di sol mask te itam di sore moytu jataay yi nga xamante ne nii dañuy euh, rabaloo dañuy saafonte ñoo ngi sant bu baax a baax waa kër docteur yi nga xam ne wane nañ farlu ci jàngoro ji ñi nga xam ne ci ñoom ci seen biir ñàkk nañ ci seen bakkan ñoo ngi leen di jaal seeni mbokk di ñaan yàlla xaare leen aljanna ji gën a ñi nga xam te ni itam ci biir njaboot gi lañ bokk ci biir mbokk yi te ñu ñàkk seen bakkan njaal yooyu itam ñoo ngi la koy biral seen waa seeni mbokk ñoo ngi ñaan képp koo xamante ni defoo ko woon nga dem ñàkku ji ndax ñàkk yi kat bokk na ci liy fàggu ci jàngoro ji kon mbokk yi li gënoon na sabab nag taxawaay bi tey mooy mbirum rawante gi nga xamante ne nii ci lañ jëm muy processus électoral ak élection yi te ñu war cee egg ñaar fukki fan ñett ci weeru janvier ci at mii di ñëw bëggoon nañ joxe ci suñu xalaat di ko def ci xel mu dal di ko def itam ci bëgg rek mbir yi jëm ci kanam ci ñi ko seq li ñu xalaat day mooy lu mel nii ñi ci bokk ñépp ñoo yem dayoo amul ku ndaw amul ku mag amul ku yàgg amul kuy doog a door ñëpp dañoo jóg taxaw ngir changer maanaam soppi li nga xamante ne moo yem ci réew mi ñëpp dañoo jóg ci loolu donc ñëpp a war a joxante loxo waxtaan ci képp koo xamante ni ne dangaa bëgg a demal sa bopp pour natt sa doole loolu kenn mënu ci dara mën ngaa dem tàllal sa loxo Sénégalais yi ci biir réew mi yëpp ñi la mën a boteel boteel la wante jàpp nañ ne mbir mi nekkul foofu dañoo war a xool ñiy jongante ñi nga xam ne nii dañoo bokk ci ñiy doxal ñun ñi nga xam ne dañoo nekk ci kujje gi ñu jàmmaar ñu jàkkaarlook ñoom àndandoo fexe ba randal leen ndax kat Sénégal juróom-ñetti at yi yàgg na te wane nañ ne mënuñu te buñ leen mayee benn yoon bañ toogaat dina metti ci askan wi kon boog lii warul nekk ay parparloo warul nekk euh, lenn loo xamante ne nii dinañ ko ci xool lu dul askan wi ak fexe ba Macky sàll génn ci bunt bi gën a gaaw lii mooy mbir mi ci waxtu wi ñuy wax kon nag ñun jàpp nañ ne dañoo war a fexe ba ñun ñëpp nekk benn yaatal xol yi kenn bañ cee gis sa bopp kese ñu tàllalante loxo fexe ba ànd ndax kët bu fekkee dañoo jiital suñu soxlay bopp wala suñu gis-gisu bopp senegal ci boppam moo ci sonn kon nañ fexe ba jaamu soxlay askan wi fàtte suñu bopp ku nekk nag wax nañ ko sànq a ah, li nga xalaat ak li nga bëgg a def kenn mënuñ ci dara ñun congrès renaissance démocratique ak coalition jot na li ñu soxal daal mooy opposition bi dañu war a ànd jox sénégalais yi programme bu wér jëm ko wéyal ndax ne ndax kat bu ñu àndul euh, dina metti ci askan wi ci askan wi la ñëwaat ci suñu wax ndax moom lañ bëgg a fexe ba coono bi ñu nekk ñu dind ko kon nañu ànd fexe ba ku nekk am ci toogaay bu ak taxawaay bu leer ku nekk ñu jox la li nga li nga li nga li nga li nga mérité ci ànd boobu loolu mooy wax ji war na mën a nekk ñu ngi ciy liggéey ndax kat Macky Sall moom depuis benn fan ci war novembre ci at mi jàll ci la wone li bëgg def na benn yaatal bu mu tuddee mburoog soow maanaam ànd di pàccoo réew mi ñun nag loolu nekkuñ ci te jàpp nañ ne bu fekkee ne nit ñi Sénégal leen yitte yitteel dinañ ànd fexe xeex ba loolu jeex ci suñu réew. ci biir réew mi ñun ñi nga xamante ni ñoo nekk ci congrès de la renaissance démocratique ak coalition jot na ñi ñu toogal ci département yi ak ci communes yi wax nañ leen. waxtaan nañoo ñoom jox nañ leen itam ndigal ñu waxtaan ubbeeku ci képp koo xamante ne nii soxlay askan wi moo la tax a jóg nga bokk ci ñun wala nga bokk ci kujje gi ñoo ngi wax suñ ñooñ suñuy militant ak ñi nga xamante ne nii li ñuy wax soxal na leen ñu ànd ci gox goxaat yëpp benn bu mu ci mën di doon ñu daal di àndandoo taxaw jàkkaarloog ñi nga xamante ne nii ñooy taxawal nguur gi ba ñaar fukki fan ak ñett ci weeru janvier ci at mi di ñëw ñu ànd ñoom ñëpp fexe ba daaneel lii nga xam ne moo fi nekk te war naa dakk loolu tàmbali nañ ko Thiès tàmbali nañ ko Malem Odar ndakaaru gii ñi ngi ci Tambacounda ña nga ca te jàpp nañ ne yeneen gox yi nekk ci réew mi itam dinañ dugg ci loolu. ñi nga xam ne ñoo nekkoon nag ci juróom-ñetti at yi di doxal gox goxaat li liñ leen di ñaan mooy euh, ñu taxaw wax askan wi liñ jot a def bokk na ci li ñu naxarlu ñetti at yi jàll kenn joxu leen baat ku dul président de la république moo leen may ñu toog ci kow nit ñi di def li leen neex wante nag nañu joxe seen bilan wax liñ jot a def balaa ñuy tàllalaat seen loxo kenn loolu moom ñoo ngi koy ñaan solennellement euh, na ngeen ko jàllale ñooñu li ci des nag bëggoon nañ wax fii ci anam yu wér ne mbirum ñetteelu mandat moom jàpp nañ ne lii xewoon mois de mars ak ni réew mi taxawee tem di artu dina tax ba président ma Macky sàll dootu ko xalaat te bu ko jéemee xalaat itam duñ ko ci bàyyi lii lañ xaatimoon ñaar fukki fan ak ñeent ci weeru août tey jii di leen ñaan ngeen jàllale ko di leen gërëm di leen sant seen taxawaay